jërul présenté ñëpp xam nañ ko fi mu toll waaye ñëpp xam nañ ko ci liggéeyal lislaam liggéeyal daara alquran te mu doon lu ko war ndax sëtu sëriñ Ndam Abdourahman Lo la kon sëriñ Mbàkke moomu mooy ñëw waxtaan ci lan mooy liggéey bii ngeen liggéey ci daara ak nan lay demee ak lan moo ci nekk lépp kon sëriñ Mbàkke bismillah kon bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu taala wasallama ala sayidina muhammadin wa alihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel di tàmbali samay kàddu ci sant yàlla borom bi subhaanahu di julli ci yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa di ñaanal bu baax cheikh muhammadunil muntaka suñu borom gën koo sàmm gën koo dëgëral waaye di nuyu daara ak ñoñ daara ñi daje fii di bérébu Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moo doon kilifa ñoñ daara yépp di nuyu sëriñ Abdul Ahad Jaxate ak mbooleem mbokk yi mu àndal ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñi ngi ànd ak seeni kilifa di ko liggéey di siyaare bu baax sëriñ xaadu waaye di nuyu sëriñ Mamor bi mu fekk ci jataay bi ak mbooleem mbokk yi nga xam ne ñi ngi ci ëtt bi teew fi waxtaan wi nag noonu ko sëriñ boo waxee léegi naka la ñuy liggéeyale daara ak waa daara ak liggéey boobu ban jeexit la mën a am xëy na ñi sosu di liggéeyal alquran xëy na fàttalante ñoom waaye ñoom xam nañ kon liggéeyal daara nuñ koy defe xam nañ lu muy jariñ ndax moo tax ñu sosu waaye nag waxtu wu ne di fàttalee dana jariñ ab ku gëm ndigal loolu xëy na moo tax mbokk yi bëgg ñu waxtaan ci liggéeyal ñoñ alquran ñoñ alquran nag ñooy xej yàlla yi noonu la ko yonentu ay salaam waxee ahlullaahi ahlul quran xasatu ñoom ñooy xej yàlla métier mi njorit mooy métier mi gënal yàlla ci kaw suuf xayrukum man taallama alquran wa ma ndax alxuraan moo demee noonu lépp lu taq ci moom gënee ko lu taqul ci moom jibril mi ko doon wàccee yonent yàlla muhammad mi ko doon wàcce weer ramadan bi mu wàcc ak xeetu muhammad bi mu wàcc ñu ñëpp ñoo gën ñu dul ñoom kon day wane màggaayam màgg googu nag yàlla la soob mu jox ko cër boobu waaye bëgg na it ku ko taxaw kon alxuraan mooy téeréb yàlla bi nga xam ne li yàlla bëgg nit mel ni li mu bëgg ñu defal ko ko lépp dëxëñ na ko ci biir lépp luy jëmee nit kanam di ko wan yoonu jub mi ngi ci biir alquran inna hada alquran yahdi lillati hiya aqwam lu ne la ca gën a jub alquran moo cee wane yoon yàlla wàcce ko mu nekk yërmaane ñeel xeet bi jox ko yonentu yàlla muhammad mi nga xam ne moom itam yërmaane la woon ci àdduna bi muy loo xam ne nag doomu aadama yi mënuñoo dund dund ku jag te sukkandikuwuñ ci moom loolu moo tax sunu borom ci yërmaandeem wax ne moo wàcce alquran waaye moo ko fi téye inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu la xaafidun moo ko fi téye ndax ci la jariñu nit ñi nekk jariñu googu nag téye gi ci ay nit la koy jaarale ñi mu ko jaarale rek ba alquran man fee des mën a law ñoo ñooy ahlul quran kon ñooy tànneefi yàlla yi ñooy xaj yàlla yi nga xam ne la doon wàcc ci muhammad alayhi salaatu wasalaam bu di ko jotli saxaaba yi ñoom saxaaba yi jotli ko taabiroon yi ñooñ jotli ko taabiroo taabiin muy law ba agsi ci ñun kon naka jekk ñooñ ñëw wutu yonent mission bi yàlla yónni woon yonent bi ñoo ko yore ndax ñoo yore kàddoom muy lu am solo loo xam ne ku ne war na koo xam lu amee noonu solo nag mënta ñàkk a bari coona faw mu am fitna faw mu metti faw mu jafe ndax dayoo ma ni toll dayoo moo toll noonu moo taxit mu laaj ak jàppule laaj ndimbal ku ne ci noonu war a fexe bokk ci ñi yàlla wax ne yàlla li wax ne mooy wattu alxuraan nga fa yéene bokk ci ñi nga xam ne ci ñoom la koy wattoo ci ñoom la koy wattoo kon liggéeyal alxuraan mooy liggéeyal diine mooy liggéeyal sëriñ Tuubaa fii ci noonu ndax sëriñ bi moo waxoon ne bi xidmatil kitaabi wal xadiis yi yathbutu laa bi dahabin mawruuf yi sama ndono sëriñ bi li koy sàmm di ko fi téye mooy liggéeyal alquran ak sunna te ah ahlul quran mooy ñoo nekk ci alquran nekk ci sunna ndax sunna dafa ñëw rek di mottali ak di leeral ak di jottali li ci biir alquranul karim sëriñ bi wax ñu lu leer ne sama ndono mooy nga ñu liggéeyal alquran ak xadis moo ko fi bàyyi kon xidmatu ahlil quran liggéeyal leen ci anam bi ñu waxee nii mooy liggéeyal sëriñ Touba mooy sàmm ndonol sëriñ Touba li fi andi woon loolu it lu ma ta xam xidma boobu nag lu yaatoo yaatu la loo xam ne nit ku ne mën na ko it ndax majaalaat diñ koy defee dafa yaatu bu kenn jàpp ne yow bokkoo ci ñi war a xitmaal alxuraan ndax amoo xay na xaalis wala amoo xam-xam du de képp kuy nit faw nga xam dara wala nga am dara wala nga man dara ñett yooyu moom yàlla ci mbaaxam ak njërmandeem nit ku mucc ci yooyu yëpp ku xamul dara mënul dara amul dara yàlla bind ko kenn ku ne nag ki xam mën naa xitmaal ahlul quran ki man mën na ko xitmaal ci man manam ki am mën na ko xitmaal ci am amam kon la la boo xam ne doonut ne daa am ñu ko jagoo kenn ku ne ci nun mën na ko def mën na caa bokk ndax li tax alxuraan des mooy mu am ay daara yu fi des mel ni mu war a mel li daara yi laaj lépp nekk ca am ay donga yuy jàng am ay sëriñ daara yu jàng loolu bu amee alxuraan des fi ndax ñu ngi koy liggéeyal te bu fi desee diina des fi te bu fi diina desee nit ñi mucc tey ak bu ëllëgee léegi nag daara li koy tax a des mooy barab la laaj fépp fu ay jullit daje mat ab lim jaadu na daara am fa ndax daa bokk ci seenu dund lii xew nga xam ne ay nit ñooy coobarewu lépp ci sëriñ daara yi ay nit ñu coobarewu lañ jàng alxuraan ñu yar leen te wala ñu fekk seeni i bàyyi seen i nekk ca ñu gis ne seen dono ñu def seen góor góorgóorlu bopp jël seeni kër soppi ko daara loolu mooy li gën a yaatu waaye ci dëgg-dëgg nag mbir yi wërtoon demee noonu daara wërtoon nekk lu ñuy bokk wërtoon nekk lu ñuy bokk ndax dayoo ak jeexitam ci société bi weesu nañu di ko bokk jaadu woon na quartier yi. bépp karce bu ñu natt bu ñu nee nangami kër ñu xool lu tollook jenn daara am ca parcelle boo xam ne daara lay doon waa quartier ba moom ko sëriñ daara bu mën a nekk waa quartier ba ñoo lay gàddul sa lépp yow it nag nga gàddul leen jàngal seeni njaboot yaral leen bu doon demee noonu lu yomb la waaye li ko jafeel bokk na ci ay nit ñoo coobarewu jël seen kër xaaj ko dëkke benn bi li ci des nekk daara njaboot gi ne fa dongo yi ne fa ñu leen di jàngal leen yar léeg-léeg ñu boole ci di leen dundal kon xidma bi ñuy wax ni bokk na ca fexe ba daara am ay barab yu moom daara am ay barab yu moom bañ nekk luñ bokk bañ a nekk luñ dugal ci kër loo xam ne bu ëllëgee bu ka fa nekkoon demee ña fay ñëw buñ bokku ta moom gis-gis daara ja mën a toxu waaye daara ni jàkka mel nga xam ne fu xas nekk waqfu lay doon kenn sañu du koo soppi dëgg-dëgg daara noonu la waroon mel fépp fu xas nekk day des di daara ku mën a jàngale ne fa boo fu mënta jàngale nga jóge keneen ñëw fa di jàngale kon liggéeyal ko mi ngi tàmbalee ci wutal ko barab barab bu tegu ci yoon loolu it jàpp naa ne képp ku am man-man ne cib quartier quartier ba amul daara war ngaa fexe ba wut barab boo xam ne da fas yéene mu nekk daara sëriñ daara ba fa nekk di jàngale bu barab ba tegoo ci yoon ñu jox ko barab ba mu dëkke këram di jàngale ci daara ji dana am solo lool su boobaa waaye nag bu daara taxawe it ñu defar ko li gën a doy mooy barab yu bari tey at léegi sax mu ngi soppi koy ci ginnaaw barab boo dem daara ja moo fay gën a solo te loolu wërtoona nekk ndax lañ fay def moo ëpp solo ña ko fay ñàkk di ko dundal ñoo gën ci nit ñi kon waruñoo nekk fu yees waaye loolu mooy li am kon jaaru na ñu fexe ba bu barab amee ñu fexe ba defar ko ba mel ni war a mel dëkkuwaay ya jàngukaay ya maraafeq yi mu soxla ci ay wanag ak ay jëfandikukaay yépp ne fa ba ku fa dugg xemmeem ko tubaab yi bi ñu dikkee ci réew mi bëgg a xemmeem loo nit ñi seen seen njàng mi dañoo fexe ba wutal leen ay jàngukaay yu xemmeemu nga xam ne gone yi dañuy yàkkamti xëy dem fa ndax rafetaay baag nañ ca def loolu daara moo ko gën a yaayoo kon xetmal daara gis na ko def ci wutal ko barab waaye defar barab bi ba mel ni war a mel su barab mere ni war a mel nag nga fexe ba ku mën a jàngale nekk fa ku mën a jàngale nekk fa koo xam ne xam na man na te xam na te bëgg na ndax ñett yooyu mënta ñàkk ngir am njàngale am am na ñoo xam ne yàlla dana ne bind bind leen ñu bëgg daara juddu ci daara ñu jàngal leen yar leen former leen ñooña mën nañ yor daara waaye léeg-léeg it nga dajeeg ñoo xam ne dañoo fakkastalu ci daara wër nañu wër bëgg luñ defe amuñ ko ñu dem ci daara loolu nag li ciy musle toppatoo daara ba nga xam ne képp ku fay nekk dangay doon koo xam ne bëgg nga ko xam nga ko te man nga ko ñu taxawu leen la war ca ñoom ñu di ko def ndax ay njaboot lañ ay boroomi kër lañ ay nit ñu ami soxla lañ te soo bëggee ñu mën a ne ci daara ji la ne ci li war ca liggéey ba lépp ñu koy def faw nag seen wet ya ca des am ku leen ndax ñoom ñoo wuutu société bi ci yar njaboot gi ak jàngal leen kon société bi ñoo leen war a wuutu ci taxawu leen seen kër li sonal daara dëgg-dëgg bokk na ca sëñ daara boo xam ne daa am yéene jàngale ak yare waaye bu ci am day boole di jéem a dundal gone yi su leen mënta dundal ci boppam mu leen di sant ñu yelwaane ngir ñu am luñ lekk lay lekk yelwaan moom ci la sëñ daara bi dund mook njabootam ak dong yi jàng muy yàq lu bari ci njàng mi di gàllankoor lu bare bari léegi-léeg ay nit di ci profité di yàq seenu der waaye lu mën a jeex la ci koñ bu daara nekk bu ne waa koñ ba mën nañu jàppalante fexe ba waa daara ji moom duñ yalwaaneeti ci kenn ku ne jàpp ne jàpp ne war ngaa jox Sëriñ Tuubaa hadiyee ci daara waaye war ngaa liggéeyal yàlla ci alquran war ngaa bokk ci ñi sàmm alquran ga war ndab loo yóbbu ci daara ja ndékki añ ak reer kër gu ne war naa mën a am sarax bu fay jógee jëm ci daara nga warlu mag ñu baax ñi loolu bokkoon na ci seeni melo dañuy warlu am sarax am ñu ci boole woon sax ndamul gan dañ koy warlu ci kër lu mel noonu bokk na ci li mën a jàppale daara ba kenn dootu fa yalwaani waaye dongo yi danañ jàng nañu war a jànge te duñ tardé ndax bari na ci njàng mu daan yeex li ko waral waxtu wiñ dul jàng di ko yalwaan mbaa ñu di ko liggéey mbaa ñu ne ci yeneen ba njàng mi yeex ba bu ñuy mokkal alxuraan fekk lu bari ci seen ak sori loolu lépp nag mën si ko fanq léegi ci njaboot yi taxawu daara taxawu ñooñ daara waaye taxawu leen nit ci am faj ndax dongo buy jàng nit la nit day wéradi ñu fexe ba daara ji di am boîte pharmacie waaye am sax fajukaay boo xam ne danañ mën a fexe ba jenn daara dootul soxlaa faju ñu di ko rangloo mbaa ñu di ko sonal Sëriñ Xaadim Ture léegi bi ñëw mi ngi may wan wax ne ma njaareem ñoom fexe nañ ba am ab fajukaay boo xam ne dong yaa ko moom loolu lu am solo loo xam ne ñëpp ñëpp ñoo ci war a roy barab buy fajukaay fexe ba daara am ko nga xam ne dong yaa fay fajoo kenn du dikk derang kenn du tardé loolu lu am solo la bunt la buñ mën a faj jàppe jàppale daara waaye jàppale ko ci di fóotal gone yi ak di leen taxaw su gone wéradee ñu mën koo faji waaye fat ko ci kër di ko toppatoo ba mu wér loolu kenn ku ne fa nga nekk war nga cee am benn cër lu mu tuttu maanaam doomu aadama bu dee jullit suñ ko laajee lan mooy sa jote ak sa ak daara wërte wax man aw ma ak daara relation loolu ab jullit jaaduwut ñu ne la amu benn alaax ak daara yonent ay sax daa waxoon ne nekkal di ab donga wala nga jàngalekat wala nga bëgg ñi jàng lim bu weesoo ñooñu amul solo kon doonal koo xam ne ab dong ab daara nga walla ab sëñ daara nga walla ab paaraanga nga walla kuy jàppale daara ji nga ci xeetu jàppale woo man waaye buñ la laajee ne loo séq ak daara nga ne dara yaa ngi def lu wóoradi ndax mooy barab bi nga xam ne ci la ñuy defare nit ñi ñi gën a jag ci àdduna ci rawatina ci réew mi gën a jub ëppal njariñ réew mi ci daara ji lañ génn bu dee ci koom-koom bu dee ci xam-xam ci lépp naa wax ñi gën a tegu ci yoon ëppal njariñ réew mi ci daar yi lañ bàyyi ko yow nag nga fexe bokk ci ñii formé ñooñu bàyyi xelit la yonentu yàlla muhammad alayhi salaam waxoon ne kenn nit waxoon na ko imaamu ali ne ko yàlla gindee ci yow kenn moo gën moo gën alal yi àdduna yëpp alal yi gën a baax ci alal yi àdduna nga fexe ba nit gindikoo ci yow ko gën léegi nag jàppal na yow daara ji boo ci jàppee taxaw waa daara ji fexe ba daara ji jàng dongo yi di jàng sëñ daara bi mën a toog jàngale képp ku fa jànge bu jub yow bokk nga ci ñi ko jubal mu yiw wudul jeex ëllëg fu mu mën a tekkee lu mu mën a doon bu ëllëgee yow mu jàpp woon ci am njàngam lu mu def ci lu baax sa wàll génn ji ndax yaa ko jàppale woon ba mu mën a taxaw taxawaay boobu kon am na solo ngay liggéeyal yàlla ci nit ñi nit koo xam ne boo ko boo noppee ci moom bu génnee day dem defaat leneen lu baax lu bari sosu ca waaye yow mi ko jàppale woon lépp lu ci soqi ko dañ ci am tuyaaba lool it jar na tax fonk daara fonk ñooñu ci jàppale leen ci anam googu bàyyi xel baax ne yu baax yi bari nañ waaye bokk na ci li ci gën joxe aw ñam laajoon nañ yonent yàlla muhammad alayhi salaam ayul islaami xayr lislaam lu ci gën mu ne woon nuyoo ak joxe ñam rawatina jox ñam koo xam ne da ko aajowoo dongam daala ñëpp xam ne dafa aajowoo ñam waaye ñam buñ ko joxit day tax mu mën a doon koo xam ne liñ koy doyee bu dana ko mat bari waa na kuñ sàggane jàngaluñ ko yëruñ ko ndax ñàkk lu mel noonu mu màgg doon ku ñàkk solo te waroon a mën a doon koo xam ne dana féete réewum fu ne li sëriñ bi waxoon ne ku mën a wattu alxuraan ñu sàggane ko ba wattuwut alquran amul ci kaw suuf lu ko jar ñi mën a wat alxuraan bari nañ waaye bokk na ci gàllankoor yi tey daara ju taxaw la fa war a nekk lépp nekk fa loolu mooy ndimbal li gën a jege kon loolu waajur yi jullit yi fu ñu mën a nekk nga am doom ak nga ñàkk doom jàppal ne am nga waro garu war a taxaw daara gëmal ne bis bu yàlla sàkk dara war naa bàyyi ko ci man dem ci daara ji ndax denc bu dul yàqu la lépp loo fa def du sànku mukk ci àdduna da ngay dund mu di la jariñ boo faatoo mu di la jariñ boo dekkee ëllëg it mu jariñ la yóbbu laal aljanna ndax yiw wudul sànku la te day yokk saa su ne moo ku ne ci ñun na jàpp ne man daal fas naa yéene daara ji ma dendal ji ma gën a jege danaa fa doon dara boo mënee togg yit leen toggal leen soo ko mënut te man di leen fóotal jëlal engagement di leen fóotal soo ko mënut di leen baleel jëlal engagement di leen baleel boo ko mënut te mën a yalwaani sax jox leen demal leen yalwaanal jox leen soo ko mënut mën a wax ak say bokk ak say xarit luñ mën a dajale indi ko fa dawal maanaam fexeel daal ba sab yëngu bu ci dara mujj sab yëngu bu ci dara mujj aw yiw la fii ci àdduna boo faatoo it daraja lay doon te loolu dund ku gàtt gi jar naa bàyyi xel baax baax mbokk yi bari na ñoo xam ne faatu nañ bu yàgg waaye seenu yiw du mës a jeex ndax lan dañoo taxawaloon daara ba daara des ay nit di fa jàng di fa xame yiw wa di leen fekk fañ nekk kon nañ jàpp ne bunt yi ñu mën a taxawoo daara moom bari nañ bu kenn jàpp ne mankat kat aw ma xaalis wala aw ma xam-xam waaye yii ma wax yépp bu ci nekk aw yoon wu ñu mën a jaar taxawu daara la léegi nag bu ñu taxawoo daara lan lay jur ci gàttal mooy tax société bi jag ndax bu daara amee jag gone yi danañ jàng danañ yaru danañ jub te loolu bu amee àdduna jag li yàqu ci àdduna lépp tey nit ñi sécurité bi manqué kuy tëdd di xalaat ñu sàcc sa alal bu daara doxoon dafa liggéeyam dëgg-dëgg ñépp seen xel dana dal ndax meññeen mi jóge ci daara ñoom danañ tal leneen lu dul jóg di ubbi ay nit guddi di sàcc seen alal daa dañ leen yar xamal leen seen borom bi leen bind xamal leen li tax mu bind leen su boobaa danañ tal leneen kon buñ taxawoo daara lu muy jur mooy day defar société bi day taxit nag nit ñi am ndax nit ki buñ ko jàngalee yar ko dana xam ne daa war a liggéey te buñ liggéeyee danañ am waaye ñi taxawaalu nu ngu wuñoo liggéey indi problème yu bari yépp mooy nit koo xam ne kenn yaru ko jàngaluñ ko xamul yàlla xamul boppam su bëggee dund bépp pexe buy taxaw dund dana ko def donte jaarul yoon kon bu daara dafee liggéey ba mag jeexee ja mooy loolu société day mucc ñooñu waaye société day day day mucc ci ak jubadi boobaa nit ñu jub ngay am ñoo xam ne bu dee nguur bu dee àdduna ñu mën a doon loo leen dénk sa xel dana ci dal boo leen dénkee alal wala nga dénk leen am réew wala nga dénk leen ab dëkk danañ bàyyi xel yàlla mi leen moom xam ne bu ëllëgee dana daje moom bara ñoo bàyyi xel nit ñi la ko dénk waaye kuñ jàngalul diine yaruñ ko loo ko dénk bu mënee am pexe yu mu def ba naxala ba lekk ko te du feeñ ci lay xëye ko kont waaye ki nga xam ne nag xam na ne yàllaa ngi te boole na ko ki malaaka yu koy bind lépp lu mu def bu yowmal xayaamee ay cëram ñooy taxaw di ko seere kooko du lëjal du lëntal du tappale te daara ju jag nag loolu lay indi ci société bi kon mën nañoo wax ne jeexee ci defar daara mooy jagal àdduna dalal xeli nit ñi yombal dund gi waaye neexal ko itam ndax jafe-jafe yeeg ñuy wax yépp bokk na ci li ko fi indi nit ñu jagadi ñoo ñu teg yépp le sëriñ Moussa ko waxoon ne musiba yeeg balaa yi luñ bari bari bu leen ko sikk ngaa fi mooy yee ko ari wax ne mooy mooy yàlla yi bakkaar day jur bekkoor fexe ba nit ñu yar leen jàngal leen musal leen ci bàkkaar bekkoor dootu am kon naataa ngi am nit ñi dund ci jàmm kon jàpp nañ ne yoonu gàtt la ngir defar réew mi mooy barab yi ñuy defar réew mi nañ ko defar barab yi ñuy defar réew mi nag daaraa ci jiitu su boobaa kaso yu bari mën na tëj ndax li yóbbu nit kaso mën nañ ci mucc su kon nañ jàpp ne lépp luñ soxla man na na ko amee ci taxaw daara ak ñooñ daara taxaw gi nag mooy yi ma wax nii wet goo ma ne nga jàpp ca li muy jur mooy su boobaa sam xel dana dal bi ci desit war ngaa xalaat yow mii ne ci barab am yaakaar ci am ay gone bu ëllëgee fu ñuy yaroo boo taxawoo daara jàppale ko saa boo leen wanee ginnaaw it danañ jàpp ci daara ja ku ci war a jàng yit dana am daara ju njànge waaye doo amul solo nga nég ba soxla rek daara am gone gu fi bëgg a jàng doora a daf it sa yitte ci daara ji bu fa ko nekk jógee it jóge nga ko gon sa doom mën naa jóge ci daara ji waaye yiw bu baax boo fa nekk moom dafay des ba faw kon bu fa sa doom jógee it jàppal ne bépp dong bu fa nekk sa doom am na ñoo xam ne am nañ góor góorlu fii ak seen njaboot ak fay nekk ñuy taxaw daara ji waaye bu fa seen njaboot noppee nekk ñu génn ci loolu it amul solo tey it nag ñu bàyyi xel dëkk bii moom moo ci raw dëkk bi ñu nekk borom dëkk bi daa waxoon ne ñaan yàlla na des di daara kon képp ku fi nekk te amoo alaax ak daara amul fi place képp ku fi nekk rek jàppal ne la sëriñ bi waxoon ne sama dëkk bi na des di daara yow nga ne ci dëkk bi séqoog daara dara jàppal ne séqoog borom dëkk bi dara loolu nag ku ne war na ko moytu maa ngi wàcc sama kàddu di ñaan yàlla yëngu yëpp yàlla barkeel ko jéego yi sëriñ Abdoulaye ñoom di def am na njariñ képp kuñ ci woo jàppal ne ñu ngi lay woo ci aw yiw ñu ngi lay woo ci bëgg nga jariñu ñu ngi lay woo ci bëgg nga texe bu ëllëgee kon ku ko mën a yaatal boo demee na ko yaatal ci say mbokk say xarit say wóolale même sa sa wóolale yi nga am tey nekk bitim réew yi sax fexeel bañ jàpp ci daara yi lu ñu am yónnee la nga defal leen ko ci liggéey yàlla bi jëf judul sànku la jëf judul yàqu la defar ay nit la taxawal diine la liggéeyal sëriñ tubaa ci dëkkam bi la loolu ku ne war na ko bàyyi xel baax a baax maa ngi jéggalu nag di baalu ñëpp ak di ñaan yàlla taxawu daara taxawu ñooñ daara musalul ci ndog yi ak pakk yi gàllankoor yi am yépp ci réew mi ñaan yàlla daara dëgër ba man koo fanq loolu ñu ko ñaan yàlla ci barkeb sëriñ tubaa di jéggalu ñëpp nag wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Mbàkke Abdourahman jërëjëf sant nañu bu baax mbooleem lu ñu ci séentu woon am nañ ci lu kawe suñu njort te itam yàlla na suñu borom defal ñu dégg ak topp ñu bokk ca ladina yastamiuna alqawla wa yatabiuna ahsana yàlla na nu suñu borom may kàttan goo xam ne lépp luñ ci dégg rek danañ ko jëfe sant nañu bu baax delloosiwaat nga ñu bu baax kon nag ngir jëkkante ak waxtu wi dafa mel ne danoo am ndigalal benn documentaire boo xam ne dafa war a jàll ay minutes yu néew lay doon rek ñu xool ko ci écran yi muy ay